mbokki internet Thiès Info Thiès TV ñu ngi leen di ziar comme ni ñu leen ko daan defalee rek saa su nekk rek di am mbégte di ñëw ak yéen ci seen émission bu mag bi di astuce de femme tey nag astuce ñu indi ko ci beneen anam daal di leen indil 100 cent naturel 100 cent sénégalais 100 pour cent africain mooy astuce yi nga xamante ne ñun ñoo koy béy ci suñu réew fii lay nekk mu nekk cosaani maam mag ñi doon ko faje bu njëkk ba mag ñi daan ko jox jeeg ji nga xam ne dañuy nekk ci seen biiru néegu sëy di leen ko doon digal ndax di leen wax ne dafa baax ci ñoom astuce yi nga xam ne même jigéen bu taxaw sax suñ la ko joxee yàlla mun na laa dimbali sa biir daal di ubbeeku tey nag astuce boobu ñu ngi ko jëli fii eh, ci marché Xëlga R100 ci benn soxna bu ñuy wax Ami Bakhayokho moom mooy joxe yooyu naam eh, du sénégalaise mais dafa yàgg Sénégal di jaay eh, bio 100 pour cent naturel di jaay yi nga xamante ne ay astuce la yoo xam ne bu ko femme utiliser seen jëkkër yi dañ leen di gën a nopp mais nag yoo xam ne 100 pour cent naturel la 100 pour cent africain ay ca bàyyi mu nuyoo bu ñu paree ñu présenté leen yi nga xam ne moo di astuce yu naturel yi astuce africain yi 100 cent sénégalais ñu ngi leen di ziar. ayca ami maa ngi lay nuyu. Mhm, maa nag ñu ñëw seet si la pour nga woon ñu produit yi nga xamante ne jigéen ñi suñ ko faralee di def ah, dina neexal seeni sëy dina leen boole ak seeni borom kër. benn façon yan ak ban la ñuy boolee ban ak ban nga xam ne day nekk 100 pour cent naturel te nag ñu ñëw pour nga présenter ñu say say say sa produit yi ñu bàyyi la nga xool ci ban ngay commencer amee. waaw ah, loolu amul problème wala ah, bii gis yu bari xam nañ fi ah jàppataan lañ koy wax waaw waaw. am na xam ne donk koy boole euh, nem-nem waaw bu nekk nga boole ko ci ay lem ay façon façon quoi. nem-nem bi dafay am. nem-nem mi ngi nii ma nekk nii euh, euh, non non nga boole ko bi ak bi waaw bu jël bi nga jël bi an ngaa suur suur ko waaw dafa baax trop waaw nekk. lay taat sa jëkkër ji da bëgg. da lay gën a nokk. voilà dëgg la <laughs> nan nga koy boole da koy boole rek def ko ci ànd bi. non waaw lii ngay jël boo jëlee fi benn. jëlee fi tuuti nga bool ko def ci ànd bi waaw soo waaw ayca gis ngeen mi ngi nii neb neb la soo ko booleeg ñàppantaan bi nee na nga def ko ci ànd bi nga suuru ko day tax sa jëkkër gën laa nopp kon as si 100 pour cent naturel te du am effet secondaire. bii jinjeer la jinjeer la waaye man duma ko war a xas quoi jinjeer lu muy voilà loolu lay baax amul benn da def ma javel def ma si dara lii boo heure boo bëgg boo bëgg a utiliser da raxas ba mu set voilà def ci day baax du la feebar du def dara voilà boo ko gis ñu lay bi du salte du dara waaw. lan la lan la mën a njëriñ ci jigéen. waaye baax na ci jigéen baax na ci góor góor la gën a baax sa waaw jinjeer kees ak limon ak suukar jeex na waaw moom mooy faj waa waaw. mi jinjeer kese la wax ak suukar ak limon doo ci boole dara day faj góor ba pare nee na jinjeer bii nii ngeen gis mooy bu ñuul bii jigéen ñi bu ngeen di jënd dee leen jënd bii parce nee na bii nii. amul effet secondaire amul dara parce que kenn raxasu ko mais bu weex tàll bi moytu leen ko boobu mën na leen a jural ay xat-xat wala ay jafe-jafe mi ngi nii ay ci amee ñu jàll ci waaw waaw ah, bii tamit baax na même jigéen boo toll jigéen di sax mën ngaa jël bii benn bi raxas ko de un litre d'eau bagal ko naan noon day raxas bébé bi baax na ci jigéen bu wér voilà. ayca nee lii ceeb la yaakaar naa ne xam ngeen ko euh, jigéen bu tolloo diggante nekk en état de mun na koy jël di ko baxal di ko naan nee soo ko dee baxal di ko naan mun na la mun na la faj te du am benn effet secondaire te mun na la jàppale ci li nga xamante ne mooy grossesse bi ayca ami ñu jàll ci beneen. waaw bii tamit ardank la. waaw dafa jaxase ak ceeb ak ardank ak jigéen garabu jigéen waaw bu am doom mën ngaa baxal. naan wala boo boo may jàng jëkkër boo teddi nga bagal ko def kaas kaas bi def ci meew jaxasi naan mooy xëy xale yi waaw ba même bu am avorté sax mën ngaa naan noonu du def dara waaw. ayca mi ngi nii gis ngeen nee na lii aldanke la mu boole kook ceeb boo xam ne dañ koo mooj nee na boo amee doom mun nga ko jël baxal ko boole ko kaasu meew nga daal di koy naan wala sax jànk boo xam ne dañ koo maye mu tëdd mun na ko baxal moom tamit boole ko ak kaasu meew daal di naan nee na dina raxas sa biir bi ba mu set te dina la faj ci lu bëri di nga dina wàññi complication yu bëri c'est vrai certes des fois nga gis jigéen boo xam ne dañ koy doog a maye mais day am problème mu jël grossesse parce que day fekk biir bi setul ni mu war a setee mais soo ko jëlee ak ndimbalu yàlla yàlla mun na laa defal jàmm muy aldanke bi ak ceeb boo xamante ne dañ koo mocc ay ca ami ñu si beneen waaw bi Fede Jika la waaw waaw Fede Jika la tudd ak quatre côté waaw même boo boo boo am biir bi métti am naa jigéen ka xam ne boo gis règle biir bi day métti boo ko boole un litre ak jar jar bi nga boole ak euh, Fede quatre côté bi ak Fede Jika bi jaxase ko def ci ndox waaw bagal ba mu naan dina tane amee biir yu mel. waaw même boo yéex am doom sax bëggoon naan yàlla boo la dimbali nga am doom boo yàlla boo am figron bu ndaw wala kis yooyu bëggoon naan yàlla dina dimbali mu sëñ. bii nga ne mu tudd. bii féede jikkaa la bii quatre côté bii jar la. waaw ñett ay ca mi ngi nii bii nee na Fredjika la tudd bi quatre côté bi yaakaar naa ne miin ngeen ko bii jar la jar nag xam ngeen ko ndax ñu ci bëri dañ koy def ci kafe di ko segg di naan waaye nee na bu fekkee ne sax da nga yéex a am doom moom tamit nga boole leen def ci un litre d'eau di ko naan yàlla mun na la dimbali sa sa sa sa sa njur bañ a taxaw su fekkee da nga am fibrom boo xam ne day doog a commencé maanaam bu bu ndaw a ndaw aussi yàlla mun na def mu daal di koy seeyal kon gis ngeen ko nii jar niñ ko taamu woon ak quatre côté ak Fredjika comme ni ngeen ko gisee nii ñëw leen ci ami 100 pour cent naturel la ay ci amee ñu jàll ci beneen. bii tamit ni garabu émeric la émeric bu la sonol parce que émeric man naa sonal jigéen sonal góor lii nii boo ko baxal bu fekkente ne émeric génn na am picc da ngay lay tamit sunguf waaw boo jaxas ko ci carotte bi di ko duyee picc boobu waaw léegi. Eh, boo paree grain bi di des nga xaaj ko def ci demi litre ndox waaw baxal ko ba mu baax ka def kaas nekk ba ci digg pàccar li moom du ko naan lii nii mën ngaa baxal juróom-benn yoon parce que bii mën ngaa ba ñetti yoon première fois ba ndox bi jeex nga dolliwaat baxal dolliwaat baxal ba mu doon ñetti yoon bii tamit noonu la boo jeex mën ngaa jël balaa balaa ñaar kii da nga gis résultat ay ca mi nii gis ngeen karité la nga boole kook nu mu tudd ami ah, ban la bii garabu hémorroïde la garabu bii soo ko boole mhm. nee na garabu hémorroïde la bii soo ko boolee karité bu fekkee ne hémorroïde bi dafa génn nga lay ko nga bu koy boolee karité bi mun nga ko jël bu dee picc bi dafa génn nga ko ciy diw nee na di nga gis picc bi dafay daal di seey nee na bu fekkee ne tamit euh, grain bi mun nga ko jël nga daal di koy baxal def si ndox di ko naan nee na boobu it mun na la jàppale ci hémorroïde bi nee na tamit mbuus mi lu muy ndaw ndaw mun nga see utiliser pendant six fois bu ko defee bala moo jeex bu àndeek ndimbalu yàlla hémorroïde bi dina la may jàmm donc kon gis ngeen karité li mu baaxee ay ci ami ñu jàll ci beneen lii moom soccu werek moom baax <laughs> soccu werek kii lay jóge waa ah, jolof lay jóge yu bari waa moom lañ koy kii baax na lii tamit soccu daqaar la Ah, ah, waaw baax na ci ñun waaw waaw baax na de waaw sotti am problème. ay ca mi ngi nii nee na bii soccu werek la soo koy soccoo sa bëñ day set wecc baax te dafa amaale ay meññeef yoo xam ne dalay daal di yokk sa wér-gu-yaram kon nag nañuy utilise yi ñu bañ a sànni suñu 100 pour cent naturel yi. ay ci ami ñu jàll ci beneen. bii bii garam ndoxam siti la garam ndoxam siti la. waaw siti boo yàqu sa yaram nii waaw man ngaa naan def ci litre ndox baxal ba mu ko naan day tane bii moom koy kii la kóoraay la yu bari xam nañ ko. Hmm, kóoraay baax na de baax na ci seytaane même boo tooy ni boo raxas ko ba mu set ko tooxaale ci suuf yeel day faj voilà day baax. a ah, kon koraay bi am na njëriñ nee na même boo tooyee nga dëbb ko ba pare nga boole kook supp yeel dina la amal njëriñ te baax na it ci saytaane garabu saytaane la gis ngeen ko mi ngi nii kooraay bi lii tamit garabu ndoxum siti la day faj siti sénégalais ku ne xam ne ne siti daf ñoo sonal ay ci ami ñu jàll ci beneen. yaakaar naa <laughs> lii de kii la njanam la waaw même tamit baax biir buy metti waaw ak émorique tamit baax na ci waaw. mais am na démb boo mu expliqué woon bii njanam mi ngi fi bi nga xam ne dañ koy boole ak lem te nga ne boobu noob la boobu tamit gars yi di war nañ koo soxla de ami <laughs> boobu doo ñu ko génne bii lay ban bii ñàppantaan ñàppantaan lay doon. waaw da ngay def ci pot boo ko li yëngal gaz bi day ñuul boo ñuulu da ngay écraser mu doon poudre poudre ba ngay jaxas lem bi rek poudre bi ngay jaxase waaw baax na. <laughs> nan lañ koy utiliser. ah da ngay utiliser rek. waaw. <laughs> ami <laughs> bii ñàppantaan bi xam nga wane na ko deux fois mais ñàppantaan bi dafa bëri njëriñ nee na da nga koy boole ak lem ak karité nga melange ko mais boo koy boolee ak karité ak lem danga koy lakk ba mu nekk poudre nga lay ko nga boo mélangé ko karité ak lem nee na booy sekk ak sa jëkkër nga diw ko tuuti ci sa kanam nee na boobaa waaj ji da lay toog kon xam ngeen ni bio 100 pour cent naturel mi ngi nii ñàppantaan la de wari leen ko ci ami gaaw. boo mhm. ko defee tamit café wala ataaya bagal jox ko dañuy jubóo ay ca gis nga mu nekk it lu am solo nee na boo amee ñaari doom yoo xam ne juboowuñu fu ñu nekk dañuy jàppante rek soo ko baxalee def ko ci ataay xale yi buñ ko naanee yàlla mun na def ñu juboo kon ñàppantaan bi am na solo macha allah ay ca amee ñu jàll ci beneen waaw mu ngi ci biir carte yi ndoxam siti la yu bari xam nañ ko dama kaa boole ndoxam siti siti bu la sonoon nii yow danga koy jaxas dangay jël duy ko awa xaaral moo génn ay ca ami beneen ñu jëm jàll ci beneen. waaw lii laurier la waaw laurier boo fekkente ni sa yaram day métti metti boo ko baxal sangu waa baax na baax na ci bët tamit waaw waaw baax na ci toog def ci toog lekk baax na trop waaw. ayca bu fekkee sa yaram day metti soo ko baxalee sangoo ko day fa jaram buy metti baax na aussi ci bët. baax na tamit ci di ko def ci toog ñuy lekk laurier moom yaakaar naa ne xam ngeen ko ndax ñu bëri dañ koy jënd di ko def ci seeni toog kon nag bu leen ko sàgganee. Mm-hmm. Mm-hmm. lii garabu ndoxum siti la. lii garabu ndoxum siti la. Mm-hmm. fekkee daa génn sa yaram ah, am heure wala picc wala wara waraan wala lu ngay wax sax xam yi yàqu yaram yi voilà bii carte bi ngay laal. bu laal. lii karité la. lii karité la garab lañ koy boole. waaw bu ko laal dina tan li sunguf bi ngay def nii. sungufu lan la. sungufu garab bi la. garab bu ñu boole bi moom sungufu boobu la moom ngay tubu tuuti def ci kaas ataay ndox wala kafe naane boo ko defee eh, yaramu yàqu boobu nekk ci biir bi da koy faj waaw. ay ca gis ngeen lii nee na garabu ndoxum siti la karité la boo xam ne dañ ko boolee garab mais garab bi. Euh, bañ ko mélanger ak karité bi ba pare dañ koy jël nii mbuus ko suñ ko mbuusee nag moom soo fekkee ne siti bi dafa génn sa yaram fu mu génn da nga ko ci diw boo ko diwee dafay daal di deñ mais garab gi aussi su fekkee ne am nga xalaat nga ne siti bi mi ngi ci biir wala ay xam soo ci defee ndox nga naan ko moom tamit dafay faj affaire yi ci biir mu nekk lu am solo ku ne xam ne Sénégal ndoxum siti tamit dafa sonal nit ñi. Mhm. ami euh, ñu jàll ci boo xam ne mooy tëj émission bi ñaar yii la. déedéet bii waaw bii. Hmm. lii moom kii la rek laalo la rek dañ koy def kii cere rek laalo la waaw waaw. bii bii la kii munaas la cuuraay munaas la comme cuuraay seytaan la rek waaw ak bii ñoo bokk liggéey cuuraay seytaan la man ngaa sóor même sax xale bi bu yaram tàngi boo dem ba jaar da ngay rek da ngay gis mu tane hmm, cuuraay seytaan la. bii nag mooy tëj émission bi muy cuuraayu munaas kon nag ñi tudd munaas seen turandoo mi ngi nii moom garabu cuuraayu seytaane la nee na en même temps aussi bu sa doom bu yaramam tàngee soo ko suuree dina wàññi yaram bu tàng bi kon gars yi wuti leen munaas munaas seen turandoo ngi nii ca lii la ñu indi woon na ci Astuces de Femme Saye muy 100 pour cent naturel 100 pour cent sénégalaise 100 pour cent africaine ami ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ñu doon. waaw kon ñu def loolu ah. yal na defal jàmm yal na liggéey jëm kanam yal na liggéey barkeel c'est barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ayca merci beaucoup mu nekkoon Ami Bakhayokho nekk fii ci xel Xëlga di jaaya bépp assis cent pour cent naturel moom nag nee na bëggul feeñ ndax soxlawul daray ay ay produit am rek lay wone ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak nangu ñoo woon na garab yi nga xamante ne cent pour cent naturel la ñu leen di jëfal bu baax a baax di jaajëfal Seck moo nekkoon ci caméra bi di nuyu le DG Omar Sey Latir madame Diouf ñu ngi koy jaar bu baax a baax ak toute l'équipe de Thiès Info leen di jaajëfal baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i astuce incha allah d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info Thiès TV.